Touba mujjoon a wax ca ndigalam yu mujj yi Cheikh Modou Mountakha bokk na ci li mu gën a wax ne nañ ko fàttali nit ñi Serigne Touba dafa santaane woon ca waxtaan yow mujj wax ci njariñ ne nañaan fexe fexe ba li dal diggante nasaraan yi ak yahuud yi bu mu leen dal mooy waxaalatil yahuudu laysati nasara ala shay'in waxaalati nasara laysati yahuud ala shay'in te loolu gis nañ ne mi ngi bëgg a xam ci jamono mooy jullit yi <coughs> di xeexante ci seen biir wala ñu mel luy wujjante te ñoo xam ne ñoo bokk fu ñu jëm la ñuy wax bu dee dëgg ci ñoom la leen juyeel bariwut ndax li ëpp ci ponk yi ñoo ci bokk dëppoo bokkuñ nag ay yoon yu njaar ngir àgg ci yàlla loolu jërul xëccoo jërul waxante lu ñaaw jërul boddikonte ndax loolu ay yàqare la jur te Sëriñ Tuubaa wax na ko fu baree bari laaj yi ko laaj yëpp itam tontu ya mooy julli yëpp ak njabootam daana ko wax Sëriñ Sohaybu bu laa ko déggee daa wax ne day xëstu bu xóot nag muy wax ci tudd ci yenn ci nit yàlla yi di wax nañ ñëwee ci moom ba mu nekkee ci géej gi am kenn nitu yàlla kum tudd ne kooko de ku yéeme la nitu yàlla dëgg la ndax ba muy jébbuli ci man de ci ak ngeer la ma fekk ci géej gi daa dagg boppam joxe ak nitu yàlla daane moo tax nag bëgguma kenn ku bokk ci yoon muru ku di wax dara ndax ñi ci ëpp seen seenu njaboot ñoo ne ba jébbal ma ne kon sama njaboot la Sëriñ Tuubaa kon yaata xatalutoon bi yoon da ko yaataloon kon nak nañ ci gorgor bu baax ta xamne Serigne Saliou ndax suñu borom dafa wax ci alxuraan wala shaa rabbuka la amana man fil ard kulluhum jami'a Serigne Saliou nak amna luy fuma sa xew ci juyo yi da am ci biir weer bañ dikké ba wax ba nopi moy la li ngeen wax lépp de lu baax nak ñun de ci ngeen ñu fekkum waye nak dama am tout luma ma leen di jangal moy hadith ba dafa wax ni ixtilaafu ummati rahma wajtinaabu naa sunna sama xeetu bu ñu wutee rek yërmaande suñu borom daan leen yërmaande boobu yërmaande suñu borom jooju di wàcc ci ñoom nag mëtu leen a kon nañ xam ne ay juyoo bu amee ci yu mel noonu itam ko jàpp noonu ne yàq dara kenn ku ci ne la nga na nga gis jàpp ne moo gën a jub ci saw yoon rek na la ko ñëpp warmaala te sàmmule la ko ndax xul kullun yaamalu ala shakilatihi fa rabbukum ahlamu bi man huwa ahda sabila أمنا تي الصحابة يكون أوهن رأي صواب يحتمل خطأ ورأي خير خطأ يحتمل الصواب كون نيكي تي دغ ما نيكو تي دغ لول بايو ني في كون انا سير لا دالم خلم ياكارم نيتا mu dëgmal ko jëm ca te yaakaar fii mbaar irmaani suñ borom tax na suñ borom képp mooy atti jàmm waaye moroom loolu nag ñu koy fàttali ñëpp di sant ñëpp nag. الرحمن الرحيم